jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare TV wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne yéen nag yéen a ko doon laaj ma defoon ak moom jotaay waxtaan bu yaatu muy masin la Diome nga xamante ne ku yàlla baaxal la ci wàllub ñaan gis naa sax ci commentaire yi ku ne ma bàyyi jili doo nit ndax Massila ñu ngi ko bëggoon gis amuñu fan lañ ko mën a gisee. waaye yàlla suñu borom dogal mu sottee ci suñuy suñu loxo yi ñu ciy sant yàlla bu baax di ko ko santee moom it ci disponibilité am ndax xëy na li tax mu déplacé wu wala mu génn def sorti ci man xamu ko xamuma ko yàlla moo suñu borom dong moo ko dogal ndax yàgg na am ñoo xamante ne bëgg nañoo uteeg moom comme jotaay bu mel nii waaye suñu borom dogalu ko woon ma ko ciy sant bu baax di ko gërëm ñu fas yéene waxtaanaat yeneen waxtaan yu yaatu gannaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. asalaamaaleykum wa rahmatullah bàyyi ji li ñu lay siyaar di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow di nuyu sa caméra bi di ko ñaanal jàmm di ñaan yal na yàlla def ci réew mi jàmm yàlla def ci àdduna bi jàmm ci darajey jool màkk di ñaan ñi tëdd ci lalu feebar yi yàlla sa yàlla yëkkati leen jiitu yal na saa borom yàlla xare leen ajanay firdaws ñi caabi féete ginnaaw yal na saa borom yàlla génn leen te bañ a ci ci lu mel noonu ñi ngi nuyu nag waa bitim réew fu waay nekk ñi ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm te di la ñaanal wërsëg wu yaa ba nga mën a dellusiwaat ci sam réew ci daraje yi njool màkka jërëjëf Baye Jili sëñ bi euh, dañuy dugg ci waxtaan bi rek ndax waxtaan bi moom ni ma ko bëgg a defee mooy continuité la ndax am na lu ñu jotoon waxtaan waxtu bi xawoon ñu euh, tënk ñu bëggoon continuer ci waxtaan woowu ndax jot nga maa wax kan mooy ñaankat jot nga maa wax kan mooy sëriñ mais am na ci loo xamante ne jotoo ko cee wax te bëgg naa lu baree bari ñu waxtaan ci bari na ci sëriñ si ñoo xamante ni boo leen xool tey dañuy yor lu mat ñetti numéro ñeenti numéro juróomi numéro sax ab sëriñ da koy yor yow nga ni benn numéro laa yor te moom laa mës di yor lu waral loolu ak qualité boobu nga xamante ne am nga ko ci sa bopp. waaw xam nga nit bu fekkee ni dangay ñaan te kiy ñaanu suñ borom tabaraka wa lay ñaan di ñaan ci alquran di ñaan ci turu yàlla yow dangaa war a njëkk jub boo yoree ñetti numéro mënoo wuyondoo yépp te dama jàpp ni ki bëgg a dimbali doomu adama yi fuñ ko woo war naa mën a dagg yitteem wax ak doomu aadama yi nga xam ne dañ koo soxla sama numéro bii ma yor moom laa musa yor sensé wu ko ku ma ci woo da nga ma ci jot bu àndee ak dogal yàlla numéro bi comme ni la ko waxee woon rek 77 269 cent 90 39 77 269 90 39 ba ci topp boo bëggee ni da ngay ñaan bëgg a yor fukki numéro ak juróom-ñett am nga loo pare pour def ko. Hmm. mooy li nga pare pour def ko mooy pare nga pour naxaate ndax kiy dox ci lu jub mënoo wuy fukki numéro ak juróom-ñett. Hmm. yéen ñi nga xamante ni da ngeen di woote wala ngeen gis nit joxe numéro ngeen pare pour woo ko. Hmm. bu ngeen gisee ñaari numéro ñett rek dama leen di laabire pour ngeen def attention mhm. parce que sëriñ si genn wàll gi ak man ma si la ñoo yam ñi ci ëpp mhm. dañuy wut nu ñuy xoole nu ñuy naxee surtout maa ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew mhm. mais benn numéro ku ko ci yor li ngay def wóolu nga ko te jàpp naa ni am na foo teg li ngay def loolu rek la sëriñ bi man ñi may woo ñu nekk bitim réew du benn du ñaar du ñett ñu may woo di ma wax ab sëriñ yoo xamante ni nekk nañ ci dëkk bi am fi tur lool noonu laa ko mën a tuddee euh, dañ leen di woo waxtaan ak ñoom ba déggoo bu ñu leen dugalalee xaalis dootu ñu leen a jot loolu moom yeggut ci yow wala daaw ko dégg wala doo jotee ay clients yu nekk bitim réew ñu lay wax yu mel noonu. waa loolu koy bàyyi ji li wax dëgg yàlla man mi nekk ab ñaankat sax damaa rus li tax ma rus mooy da ngay gis nit ku la ci woo ba démb am na nit bu ma ci woo nii am na ci sëriñ boo nga xamante nii jox na ko un million cinq cent mille dolliwaat ko deux cent cinquante mille daanaka booba la ko mujj a dégg bu ko woowee du ko jot kon ba léegi maa ngi ñëwaat ci numéro yi te damaa jàpp ni doomu aadama bi nga xamante ni bi muy dem bitim réew joxoo ko fukki dërëm ay waajuram boole ak ay ay guyam ak ay daqaaram ba suñ borom dogal mu dem bitim réew di yeewu ci fajar di dugg ci nees bi yaakaar naa di wut mu am ak ñaq di jóge ci diggante yóor ak deret yëkkati ko jox la ngir yaakaar bu mu am ci yow mujj laa dégg man damay jàpp ni xañ na boobu doomu aadama ni ab ñaankat la suñu borom dafay dogal ni xanaa jàppul ni bis dana ñëw na ko yàlla defee kullu nafsin saayxatul mawt jógewaat ci ni kullu man alayha faan wa yabxaa wajhu rabbika zul jalaali wal ikram dama jàpp ne ñaari aayooyu ku ko dégg ngay lekk ñàqu doomu aadama te pare woo pour ñaanal ko di ko defee ay dóor billaahi wal bi boo lalee sa loxoom di yor di ko xaar mbaamu xaar la di ko bala ngaa jéggi di ko fay mm-hmm. loolu moom amul sax si ki mm-hmm. waaw léegi ki nga xamante ni moom moo jaaxle nekk ci ay problème jàpp ni tey bërëb bi ma nekk di fi daan sama doole fii ak ñaari weer dañ may dàq ma nekk bitim réew bëgg këyit mu tëma tëcc ma am yaakaar ci nit woo ko mel ni man mii man man mi nga xamante ni maanaam àdduna ñi ci gën a doye di ci laa bokk nga woo ma am ci man yaakaar kooku am yaakaar ci nit ki nan la mën a ñëwee ci sëriñ bi ak nan la mën a def ba kenn du ko nax xam nga nit ki ngay ñëw di ñaan lu ci moom suñ boroom dafa dogal ni yaakaar ngay ñëwee ci moom mm-hmm. la la waxaan rek laa lay waxaat ñaan yombul mm-hmm. yow jàngoo alxuraan mm-hmm. soo bëggee ni dangay ñaan pare nga pour nax doomu aadama yi bi ci man di topp mooy nit ki am jaaxle ñëw ci yow hmm. suñ borom dafa dogal ni daa am noo ko war a téye te it lépp loo man di wax na nga jàpp sa ñaari malaaka yi raqib ak xatiit ñi ngi ci hmm. te lépp loo nga xamante ni di nga ko def yàlla suñ borom yaakaar naa ne mooy laa taxuusuhu sinatun wala nawlahu maa sama samawaati wa maa fi moom du nelaw du gëmmentu du def dara te benn observateur moo am ci àdduna boo nga xam ne dara du ko ump muy yàlla suñ boroom muy wa inna rabbaka labil mirsad yàlla lépp lu di def mu ngi ci ni jàkk ay bëtam di ko xool li may wax nag ci ñaan ñaan xam nga li tax yombul mm-hmm. dama bëgg sama mbokki sëriñ si ñu dégloo ma te bañ maa dégloo xol critiqué wu kenn ku fi lekk alali nit te langa ko wax danga ko teg ci ay nax bala nga faatu da nga ko layoo ak moom mm-hmm. ndax amul benn doomu aadama buy dund ci ni ñu lay envoyé ay deux cent mille ay trois cent mille nga koy dajale di ko waree ay oto di ko takke ay jigéen di ko jënd ay ginaar nga jàpp ni yaa ngi ci jàmm bala ngaa faatu dana nekk ci yow tooke wala yàlla teg say doom nattu ngay génne ba suñu boroom ni lii su ma yëg ni dootuma ko def kenn mënta nax kenn sëñ Blaat noonu woon lépp lu waaye def boppam. Mm-hmm. man su jàppee ni ñii may woo laay nax naxuma leen. Mm-hmm. nit ki nag lépp loo ko man di def nga teg ko ci ay nax danga koy layoo ak moom rek ndax la ma waxan rek yow ma naqtimu ala afahim watu kallimu naa wa tashalu arjulu bi ma kaanu yaksibun bi ngay dem di naxi nit ki tànk ya nga koy doxee suñ borom dana ko wax loo bët yi suñ borom dana ko wax loo loxo yi suñ borom dana ko wax loo làmmañ la suñ borom di tënk ba du wax mais lépp lu ci mën a doon suñ borom dana ko introsé waat ni lii ko maa ko defal bërëb sàngam lii maa ko kenn loxo ne maa jëleen xaalis nangam lu ci nekk suñu borom ki ko ku tënku ci loolu li ngay def di nga ko xam li ngay wax di ko xam li ngay dugg di nga nekk ba man ko ñaan nag yombul critiqué wu ma kenn ñaankatu sunguf bi yàlla da koo may ñaankatu reen bi yàlla daf koo may ñaankatu fas bi yàlla daf koo may mais kiy jóg ni day ñaan ci alxuraan alxuraan ñaan ci yombul ndax bala nga koo mën a xam dangay xam xaatim xam xaatim bu damm xam xaatim bu dammuwul xam xaatim bu ñu nëbbu xam xaatim bu am kasra yooyu bu fekkente ne xamewu dajewu dajewoo ceeg benn nga jóge ni rek da ngay daal di bind bind rek daal di joxe da ngay nax sa bopp te xaatim soo ci damee benn xaatim bu ci bu damm lor nga ki nga koy jox mën naa dund ba dee tëj googu mu tëju suñ borom du tijji ndax yàlla mën naa dogal mën naa bañ a daje koo nga xamante ni euh, du ko xam. Hmm. benn xaatim dañ koy bastu. Hmm. maanaam peese maanaam mi ngi mel ni nga jël kilo ceeb peese ko ba mu xam ni kilo ceeb bi nii la toll. Hmm. xaatim noonu la mel bu fekkee dañ koo damm nga xam ne dafa damm bu fekkee dafa am kasra nga xam ne dafa am kasra bu fekkee dañ koo nëbbu nga xam ne dañ koo nëbbu su jubee. lépp mën na koo sutal ba léegi nag ma wax ci ni ñaan mu nangu dogalu suñu borom la mm-hmm. mais na nga sabablu bu la nit ki woowee nga jël ko nga xool waneen yoon wala yàlla boo nag yeneen nit ñoo nga xam ni tamit am nga ci ñoom yàqin ni boo demee ñooñu seeni wërsëg mën naa dëppaloo waaye encaissé daa di toog noppi ni dinaa nax kaneen da ngay nax sa bopp a wax lu dul dëgg jëmul déwén at mi nga ko defee at mi ngay feeñe at mi nga yàqulee kenn mënta nax kenn ku jàpp ni lekk nga alali nit mi ngi lay woo doo ko jot wala ñu naan la sëñ bi dafa fatu sëñ bi dafa def lee li ma la waxan rek mën ngaa nekk ci ni da ngay ñaan yàlla kilim yi di la upp nga ni da ngay nelaw da ngaa tëju dem ci hôtel yi yooyu ay ay ay problème la yoo nga xamante ni nax waa bitim réew la rek wala jox ma ma génneel la sarax nangam jox ma ma génneel la sarax nàngam te wallahi képp koo laaj alalam génneeloo ko sarax dinga ko la layoog moom yowmal xiyam te bi ci topp nga jóg ni damay faj rab wala damay faj euh, dama yor ay jinne xam nga jinne ak rab dafa doy waar man tey bi may dugg fii xam naa bunt bi may duggee war na maa mën a xam bunt bi may génne Mm-hmm. mais bari na ci sëriñ ñu am sax problème yoo nga xamante ni fi mu ñi ngi am ay gàllankoor parce que liñ dugg xamuñu ko ngir jàpp nañ ni moo gën a yomba naxaate moo gën a yomba may maye xaalis. Mm-hmm. moytu leen borom tur yi ngeen di gis di leen ñaanloo. da ngeen di nax seen bopp gis nga fa ndox daan taa ba léegi soo demee fekk fa la fay ñuul mm-hmm. baatin ñi ko suñ boroom may ba léegi ñi ngi ci tedd. gis nga li ma lay wax nii man bu fekkente ni wan damay wax loo nga xamante ni damay ciy bëgg alal damay ñëw ma la bàyyi jili oto bi maa ko moom oto bii maa ko moom oto bi maa moom. Mm-hmm. yow xam nga ni yàlla may na ma possibilité bi. Mm-hmm. am naa ko parce que nit ñi xam nañ ma ba noppi. Mm-hmm. mu neex ak mu naqari xam nañ ma. gis nga bi combat Modou Lo bi passé. man li ma sama téléphone dama ko mujj fay. li ma woo ci ay site internet. génneel nga wax génneel nga wax man leen ma wax. yàlla won ma. ma wax yàlla suñu boroom amal ko ma ànd ak mutloo ñaanal ko suñu borom defal ko ndam pour ma war a génn di wax pour am teraanga su fekkee loolu moo may may teraanga man gëm naa ni du ma ko am ndax ya alxuraan teral na ma ba noppi. mais am sa tëju waaw xam nga am naa lu ma def ci sama poos am naa lu ma dundale sama njaboot. Mhm. te yàlla suñu borom dogal na ni euh, musuma triande benn numéro laa yor ku ma ci woo jot ma kon am na loo nga xamante ni wax dëgg yàlla jaru ko te bis bu yàlla sàkk nitu mudduloo teral ma loo nga xamante ni mën naa koo dundee weer wala mu dund ko ñaari weer kon lan laa yàkkamti ci àdduna xanaa déggoo aaya bi ma la wax léegi ma man alayha fan wa yàpp yabqa waccu rabbika zul jalaali wal ikram xam nga lu yàlla wax foofu lépp luy tooy dana wow yàlla dana rey ñépp moom kese mu des fi won ni man yàlla maa xam li tax ma sàkk leen fii lu fi am rek kenn moo la ko jox muy rabbul izzati wal jabarut muy yàlla suñu borom jaay kartan geek jaay doole geeg jaay situation yeeg naxaateeg wuruj yeeg tappale yépp ku ci nekk daañ la takk sang la suul la julee la say dossier nekk ci suñu borom nit ku dee dañ laa jàpp otage otage bi ñu la jàpp ku lay tin ñi fi des ci kaw suuf xam nga luñ man ñaanal la yàlla waaye li nga jëflanteeg sa digganteeg doomu aadama ku ci nekk bala nga koo jéggi da nga ko layoo ak moom àq bii moo doxoon sa digg kii àq bi moo dox sa digg kii àll bi àq bi moo sa digg kii waaye léegi sëriñ si yow xëyoo gontoo yàlla ngay yaakaar yàlla di la womatal ay di leen indil ngay dund ci ay naxaate di war ay oto ñi nga xamante ni dañuy xëy di gont mënuñoo am téeméer boo ci seetloo yàlla même boo amul xam-xam war ngaa dem jàngiwaat ndax jàng du wees waaw. mu nekk loo xamante ni am na solo trop waaye sëriñ bi tey bu ñu ñëwoon ci man ma nekk koo xamante ni damaa bëgg ku ma ñaanal ma woola la ma si la damaa bëggoon nga ñaanal ma ci nan ngay yan condition ngay commencé ak moom ba dugg ci mbir dinaa ci sawar xam nga nit ki nga ni waa bitim réew la nekk hmm. dinaa la ñaanal waaye dangay ngay envoyé cinquante mille seet seet fukki junni. xanaa léegi yow ci sa jëmmi bopp. yow li ngay seet bu dee dëgg. yàlla suñu boroom xamul xam lim la xamal kon wérul. mais li ngay wax bu dee dëgg la ci yow da ngay xam li ngay wax nii. yàlla rek moo tax nga di ko wax am leer na di nga faatu xanaa wa xanaa xamoo ne wa samay saatul kursi xam nga lu ko yëngal. mooy fen dafa xaraam tifaaxan yàlla mën naa jéggale lépp ba des fen wa samaay saatul kursiw heure bu yëngoo laa ilaha illallah moo ko yëngal ak fen kon lu tax doomu aadama bi fen bi ci topp ci sa laaj bii nga laaj nii. Mm-hmm. Euh, gis nga sëriñ pour nga juumloo ko yomb na xam tax nga juumloo ko li nga koy juumloo. Mm-hmm. mooy yéen waa bitim réew mi damaa bëgg déglu ma bu baax. nit ki da koy tendre pièce soo ko bëggee jàpp ndax li nga koy defloo man na ko wala mënu ko. Mm-hmm. ndax araab dafa wax ni anaa anaa lay lahu man a man a man joo gis du man hmm. am na yoo xamante ni sax ñun dañuy rus di toog di ko nettli yaa ngi di ma jël hmm. fukki dërëm duma la ko fay hmm. yaa am ci man soxla pour ma dimbali jaami yàlla yi leer na wara a leerul bi ci topp nit ki nga ñëw nga ni da koy seetal wala danga koy list xaaral yow mi koy defloo soo ko bëggee daaneel. nee ko man sama xam nga ñaar yi ci ndox lañ bind nit sawara xeer ngelaw. yooyu leen bind ci doomu aadama soo ci bëggee daaneel nit ki nee ko man xam naa jëliñ ma bind mais damaa bëgg yow nga gën ma koo leeral am na ci téeméeri nit yoo wàññi fii ñu ne ay sëriñ boo leen waxee loolu boo leen woowetee duñ la jël <laughs> mënuñu laa wax ci ci ndox lañ la bind wala ci sawara wala boo wallaahi boo leen ko waxee sax ni mën na ko waxee mënuñu la koo leeral waa léegi lool soo ci xamul nga xam biddiwu nit ki fu mu toll mm. soo nee mën ngaa ñaan mu nangu mm. man ma si la Diop dina ma jaaxal mm. dina ma jaaxal torop ndax nit ku ci nekk am na rawxaan biddiwam fii la war a toll nit maanaam da cee am heure yoo nga xamante ni heure ñaan wërsëg la am heure yoo nga xamante ni heure xeex la am heure yoo nga xamante ni heure wut wërsëg am heure yoo nga xamante ni heure wut booy ñaanal nit bayre heure bii kat génn naa xool bi diw kii waxtu sàngam laa ko war a xoolal mbiram nu mu dëbboo ak bidiw moom la ñuy wax ilmu nujum xam-xam yooyu ku mu dajewulul ci yow nga bëgg ni dangay def lasraar dina ma jaaxal ki yor nag ay fas waxuma ko ki yor ay reen waxuma ko ki yor ay sunguf waxuma ko ndax li ma man li ma xam lay maîtriser ŋàññu ma kenn nit ku dégg sama wax ji jàpp ni yaa tax may wax dangay ngay juum ndax man ñi may woo bitim réew rek di wax ak man liñ may waxal te ma nekk fii ci senegal war koo mën a leeral ci xam-xam parce que nag fa zakiru fa inna sikra tanfaul mu'minun mm-hmm. yi yi koy jëfee ñooy journaliste suñu borom fii ci kaw suuf buñ waxul ci buñ waxalul yàlla li nga xamante ni moo nekk yowmal xiyaam yàlla suñu borom deel yéen bi ma leen fi wàccee ngeen nekk samay journaliste lan moo tax waxu leen li am kon nag bala ñoo faatu di ko yóbbaale nañ ko leeral mm-hmm. waaw. mu nekk loo xamante ni am na solo trop sëriñ bi mu doon loo xamante ni dañ dañ ci kontaanaat bu baax ñu gën a wéyaat ci waxtaan bi mm-hmm. euh, tey nit koo xamante ni dafa tëju. Mm-hmm. Euh, nan ngay xamee ni kii moom ci boppam bu la woowee pour nga ñaanal nan ngay def ba xam ni kii dafa tëju ak lan moo ko mën a ubbi. waa loolu nit ki nga xamante ni dafa tëju. bu la woowee jox la turu yaayam ak turam nga bind ko danga koy adat. adat mooy bàyyi jili sa téléphone bii boo doon woo kaneen juum baneen numéro. kaneen ngay jot. su ma defoon 78 rek baatin ba noonu la mel. waaw ba léegi li may xaar ci xaatim yi noonu la mel soo jëlee loolu nga xool ko nga bàyyi ba timis jot nga génn xool biddiwu waa ji fu mu toll ci ilmu nujum soo génnee ñëw adat ko bu dee xam yaa xam da ngay seete kaamir kaamir nag seete ko yombul kaamir seete ko yombul mm-hmm. waaye boo ci seete nit boo ko ne telefaatu ku ku gëm ku ko gëm béyam nga xam ni dangay ngay pare tey laf nag arab dafa am ay ay ay ay fi'lu yu muy wax li ko commencé ci fi'lu maadi fi'lu mudaari fi'lu amre yooyu soo ko maîtriser wul. ab di ko wax grammaire mënoo seet ci kaamir nit mën na laa wax soxla léegi nga ubbi ci kaamir bi wax ko ni ko lii mooy dara du ko teppi nit mën laa wax nga jël say baat. am euh, aay yoo nga xam ni moom ngay listixaare nga listixaaral ko yàlla woon la ci lu leer nañ amul benn xaar xanaa nga bañ a xam boo nga xamante ni listixaar lam lay wax dara du ci toppi su ko defee nag lala la yàlla woon ca ngay sukkandiku nga ne ko soo defee nangam ak nangam ak nangam yàlla ubbil la buntu wërsëg yii sarax nangam ngay génne te dara incha allah rabbi du ko dindi mm. waaw. léegi sëñ bi euh, ginnaaw balaa may dugg si ci làmb mm-hmm. damay ñëw ci Massila ci lan ngay ñaan ci lan ak lan maanaam ci ci ay jàngoro ci ku bëgg a ubbeeku ci ku bëgg kayit ku bëgg a tukki yan xeet yan ak yan ngay ñaan. waaw man nag wax dëgg yàlla bu ma gisee sëriñ bu toog ni day faj lépp wala lépp mën na ko. Mm-hmm. man de dinaa la ragal. ndax ku yàlla jagleel nga man lépp ku nu jara ragal nga kon nekkatoo nit. Mm-hmm. bu dee luy joxe wërsëg. ak loo nga xamante ni jàngoro la. na jàngoro bay mel bala ma ciy dugg dama koy xool ci sama kaamil wala ma listixaar ko su ma ko listixaaree xool ko lu ma ca yàlla woon dinaa xam na ma ca duggee su ma ca gisul lu leer dama lay wax ni la gisuma ci lu leer ndax yaakaar dafa foor sëriñ ak médecin ñoo yam nit kiy ñëw ci yow yaakaar rek lay ame ci yow te yaakaar jooju dangay fexe ba mu baña tas su fekkee li ngay def wér na te tappale woo ko léegi nag tappale yi da cee ëpp waaye nit sax bu dee met boppam dee met yaakaar naa boo jële garab ba pas paracétamol jox ko war naa yëg ni bopp baa ngay tane. mi ngi noonu la wërsëg mel. noon la ubbeeku mel noonu la feebar yépp mel. loo xool yàlla won la ko nga ubbi sa kaamir xool ni lii la. lii la man nag alxuraan lay jëfandikoo. alxuraan nag am na ci ay parfum yoo nga xamante ni moom lay àndal am na ci façon sunguf yoo nga xamante ni moom it lay àndal. waaye waxuma nag dangay dem ca marché ba rek jënd fa sa sunguf ñëw rek daal di dajale boole dem joxe ko parce que garab gi nga ko def garab gi nga xamante ni ca ngay wute sunguf. Mm. garab bu ci nekk ak nañ koy jënde ak heure ba ak waxtu wa. Mm. ndax lu compliqué lu doy waar am na ñoo xam ne mën nañoo fekk garab daanu rek nga jël ci sunguf sa jox ko ni ko wërsëg la yaa ngi koy lor te doo ko yëg mm-hmm. nit lépp lu muy man di def ci àdduna soo ci jiitalee alal da nga ci dugal ay kàcc mm-hmm. ndax xaalis lu dugg daf ko yàqu mais jàpp naa ni lépp looy man di def te maîtriser ko di nga ci jiital ak ragal yàlla mm-hmm. waaw loolu moom moo ci nekk